ne ci seen kër yi ci réew mi yépp bokk yi ndox moomu laaj bu ci juddoo moom lañ bëgg a fàttalante ak sunu mbokki jullit yi bokk yi ndox moomu ñuy wooye inondation inondation inondation ñi seen xam-xam jëm ci ndox tuddewuñ ko ndax mooy ndox mu wàcc aw yoonam wàcc aw yoonam du yàgg waaye ndox moo xam ne ca la nit ñi samp seeni lal ca la ñuy togge ca la ñuy fóote ca la ñuy yeewoo loolu tuddatul inondation dañ fa nañ seet nee nañ ko tudd xamuñu nag ñu ko war a defar yàlla mooy taw waaye ay yoxu yu ko waroon a defar te defaruñ ko rek moo sonal nit am na ñoo xam ne ay at lañ ci am kenn xamul na ña nga tax am na sa ñu ca jële ay wéré di faatu nañ am ñu ci jële wéré yoo xam ne la leen tey faju ji amuñu luñ fajoo ñu toog fay xaar yàlla la ci képp koo xam ne séq nga ak aw nit la nga war a def nga def ma fàttali inondation mooy ndox mu juum ci aw yoonam xëpp dem ba àgg foo xam ne dawu fa àgg waye gis nañ ne adduna bi yëpp fu fi amit bu amee ñaari fan du doo ko bët ndax dañ koo fàggu woon ñi nit di def di fàggu ab taw ba buy taw mu seet fu dugg làqatu fa yàlla musal ko ca noonu la yàlla maanoo ci jamono ci adduna ji nit moo yore taw bi yàlla koy wàcce waaye lay yóbbu ndox ma nit koy defar at mu jot nag ñu ñëw ne def nañ ci nangam ak nangam nangul nañ leen ko xëy suñuy gët neexut ak suñu xel mën jàpp ba tax suñ bët mën caa tege rek waaye ña ngay def wax nañ dëgg waaye ñi say dund jamono yii ku amul yëg-yëg da ngay yëg ne lu méttee métti dañuy dund bokk yi ndox yàlla rek moo koy wàcc moom it moo waajal kenn ku cay dëkk koo xam ne bu ko génnee dee muy jën ak ñamel ni ñoom waaye nit munta dëkk kum ndox nañu leen wallu benn ku munta am kattanu defar lu yóbbu ndox mi it mu wutal leen fu ñuy jëm kaddu genn kaddu rek mën naa génn ñooñu seen kër yóbbu leen foo xam ne ndox du leen fa yàlla nañ ko dégg laaj bi sa juddoo nag mooy ndax ñii inondation nekk seen kër ay ati at julli dana leen wàcc waaw wala déet déedéet bokk yi julli ki muy wàcc gannaaw ña ngi fexe bay togg ku mën a fexe bay togg yem yi tegale ba mën caa togg mën na caa tegale ba julli xanaa du jàmbat ndox moom jàpp wala ndox moom sangoo wala lu mu fóote déedéet kon bokk yi ñu xam ne ndox yooyu la ko dugal ci kër yi ci ay yoxo la jaar defuñu lañ war a ma fàttaliku saa su ne ñu ne def nañ ca nàngam wax nañ dëgg ndax magum jëm du teg du taxaw ne def naa te defu waaye nag ñun suñuy gët moo desee neex genn neex bañ man ko seetlu ba man ko la xeyna nak bu jamono doxee danañ commencé gis ndax suñu gis neexu te yit suñu xel ju bañ mëna japp suma su ñun nak ñepp lay wax kon innovation taxu julli wacc nit bu duggé kërëm ak wañam ak wanegam lepp lal bobé muy fanan na fexé ba tek cëb sa jaada bu set di julli sa kaw jëm lu jëm lu xel ndax julli mooy connexion bi dox diggante jàmm ak yàlla li feeg mi ngi julli su ne yàlla mu ne jàmm bi wàccuwaayam ci lislaam ni mu toll ci lislaam mi ngi mel ne ruux ci aw yaram bokk yi aw yaramu nit wala lépp luy dox di dem ak dikk feeg ruugaa nga ca muy dem ak di lekk di nam di nelaw di yew waaye saa bu ruuga dañee tur ba day ku fekk mu tudd te xamul mu tudd bu ne la kii nu mu tudd da nga ko dee la bi sallallahu alayhi wa sallam ne ni mel ci ab jullit mi ngi mel ne aw jën ci mbaam rawati nag jënu digg wa bokk yi fii ñu toog su dul woon poto yii yi ne ci peg yi ñu gis ak yi ñu gisul du mën a demee nii mu demee kon amut lenn luy xew ba tax julli wàcc nit ki xanaa boobu amut fu mu jullee wala mënut julli gannaaw lekk ak naan du taxaw ñoo julli ñooy am dañu koy misaal ci dëkk boo xam ne yàlla ñu ci yàlla musal sawar dafa jaar ba yóbbu lu bari ci ak jur wala ci ay moom talakaat yoo xam ne waa kër gaa ko moom waaye ni si tuuti nga dégg jigéen ne xaaral ma ñëw taali reer man la tax mënuñoo bàyyi sawara lekk ak naan ci sawar lay jaar kon lekk ak naan lu mën a am du taxaw te lii tax nit ki mën a julli mooy mu lekk ak naan li feeg mi ngi lekk ak naan di am ak wér wàccagu ko fiqe daal danay jàngale bu demee ba amut fu mu taxaw amatut fu mu taxaw loolu loolu moom jamono waneegu ko waaye lañ doon jàng naan julli goo xam ne nit ki daal dem ba amatut pexe daal mel ne inondation bii ñu tuddee inondation man nañu koo wat ndax ku dem ba amatu fu tànk tànkam ci këram fu dul ndox waaye ma nga ko lala na taxaw ci lalam julli moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne li kulli shay'in amud wa amudu diini as-salaa wa amudu salaati al-xushuu kon boog lii tax nit ba mu naan bërit fekk waxtu wi daa jot mooy xol buy dund mooy xol buy dund ku waxtu di tiit loo na rafet njortu tuuti te bañ a naa ko xam ne am na tuuti ci xol bu lu des luy dund waaye aayaat yi wax ci alxuraan ñu julli toll bari na lool ci boppu kaamilu alxuraan bii ñu xam alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqin yàlla ma nga fa dendale ñi gëm te gisuñu ñi gëm yàlla te gisuñu yàlla gëm ni bis penc ñëw te gisaguñu ko gëm na sirat ak aljanna ak sawara yépp am te gëm te gisaguñu ko nonu ñu ko gëmé la koy firndel ci seeni jëf moy di julli alladina yuminuuna bil gaybi wa yuqimuuna alsalaat wa mimma razaqnahum yunfiquun ginnaaw daf ko boole ci melekaani jaamu yàlla jaamam ñi ko ragal dëgg dëgg dëgg dëgg nag ginnaaw buñ gëmee liñ gisut kon julli ko du gone du gone goo xam ne lu ne mbalam la ci rek mu ne ndax julli wàcc yàlla it lënkale na ko ak muñ ndax bokk yi ku munta muñ kaay jaay ma kaay jaay ma ju bari du dem di julli ñëpp taxawu ko lim yor ñëpp bëgg ko te yor nañ ko jënde mu yor li muy jaay ñu ne allahu akbar hayya ala salata ya la fala mu nar na ko fa ne ñukk dem lolu ko amutu muñ xamna yàlla joxe moy xagne te moo digle mënu ko istainu bi sabri was sala nee na li mel nii su amee bum té julli kenn nañi julli di ñaan yàlla mu téggé ko waye nak nag innaha la wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin nee na julli momu nak la kabiratun joji amna firikat yu ko firikati alxuraan yu ko taawile ne mooy lu diis la lu diis gann ndax day mel ne day am lu sa diggante rek tey ngaa xaar tuuti tey ngaa nekk ba ca kanam waxtu yu jeexul moxtaar mi jeexul yàlla yàlla musal di ko jaaree ci julli di jege jege yàlla jege jegelu yàlla di ko jaaree ci julli fi la ko lislaam fekk waaye lislaam nag cim ñëwee ci ay yoxoom daa mat da koo matal sëkk na war a yàlla seet na it ba xamne nit man na léppam buñ demé ci alcorane dañuy fekk suñu borom dañuy wax ne sayidna ibrahima ak lut ishaq ak yaqub ñom ñëpp yàlla digaloon na digaloon na leen wa awhayna ilayhim fi al-khayrat wa iqama as-salati wa itaa az-zakat waye sayidna ismail yàlla digaloon ndax neena wa kursu kitabi kitaabi ismail innahu kaana saadiqa alwaad wa kaana rasula nabiyan wa kaana yamuru ahlahu bisalaati wazaka wa kaana inda rabbih mardiya waaye sayidna isa it ba muy wax te fekk ma nga fa mu tëdd kayfa nukallim man kaana fi lmahdi sabiya qala inni abdullah wa آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كن ممتنا ينبلون كن دون تك دون ترل muy tàmbalee wax li ko fi tax a li ko fi tax a ñëw boole wàlle si julli kon boobu waxut lek waxut naan waxut fajj waaye ba muy lim dane moo ma dénk yàlla mii ma indi fii def ma bu yónent def ko bu yónent moom moo ko dénk mu saxal ba faw julli ak azaka li féeg mi ngi dund waaye bi muy koy sant yónent bi sallallahu alayhi wa sallam aay yu bari la waaye buñ ca jàngee fa salli li rabbika wanhar جانجا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غزق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا دني خمنا لديس فسنبر مومس مومي أني لخم دي تاو أكسيبت موكو سنتانة كون سنتانة برون شن جمال رمضان سنتانة موكو جمولة فم فكواي أكلم منا دف نووتي فم كدف دخل ويرتي ورموي كان بدم تكر قمسي سلو ne dama fee bëgg a julli ndof ñu ne ko dafa julli am na si ñun nag ñoo xam ne ñu ngi ciy góorgóorlu waaye ni ñuy jullee weesuwut bañ doonee gone yu ndaw xamaguñ luy julli gis seen wajur di ko def ñuy toppandoo rek waaye toppandoo googee bañ demee ba mu war leen dañ koo jàppe lu méttee métti loo xam dañ naan bu balaa moo sotti sax mu farfaatu ci diggante bi ndax métti day métti ci xolam yàlla ñu ci yàlla ba tax na su koy def nu mu gën a gaaw rek dañ koy nuróo sax ba ak ginaar koy for ci suuf si ni nii na cappat ni nii cap cap cap cap jug daal di jug dem mel ni li ko mel ne julli boo xam ne bi su ko dem wala sax mu ñeeña deer yàlla ñu ca xam it ci bu ñu sëlmalee léegi day am ñoo xam ne moom fañ toogoon daa mel ni daa daaw ba rek ña fa toog duñ bëgg lu dul génn jàkk ji dem ci leneen am ñu naan sax boo yeexee doo génn te fekk nañ defoon génn ndànk du nañ ko defoon ba ñuy dugg ku ko defaat génn ci jàmm waaye julli moo di ci seen seen marde bi yan ci la musal sakkantuma nag julli ga yàgg genn yàggaay wala record wala sujjóot ya wala boog la may jàng saa yee gudd dañuy tàmbalee tayal di xool moom tax ci biir julli di teen ak a sëgg ak a wér wi ba ku nekk seen loxol ndeyjoor fukkeelu nit sax mën nañoo xam la sax wala seen càmm ña kanam waxaale wuñu leen dinañ jër fu nekk li ko waral mooy julli gi daan metti yonent bi sallallahu alayhi wa ne waxuma la ne ci biir jàkka ji di julli waaye ku julli gi tax a jóg sax bu yégee ne ña ngay lekk xam bu mu ko tax a daw na dox ci ak dal lum fa fekk bokku ca su imam sallam le mu akala ci ak idha ida lis-salati fala tatuha wa antum tas'aun wa atuha wa alaykum as-sakinatu wal waqar fama adraktum fa sallu wa ma faatakum faqdu motaxit ci lolu kenn ku nek warna son ci bu dabe ka don jiti ci jàkka bu àggalee nu muy def am na ñooñu la dal seenum xel rek la def nam dale seenum xel nam dale wala nii laa gisee woon diw defee ko nag te fekk diw diw la yow yow kenn ku ci nekk bu faatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ñuy jëkk seet moom mooy julli gi ba xam jaaroon na yoonam déet jaar yoon nga ak nangu ga nangu ga ci loxol suñu borom la nekk waaye jaar yoon bi moom te la lañu ko yoon yoo xam ne ku ko jéem danga ko man rawati nak ko xamne da daa ñëw fekk tuuti des ca euh amna fu sëriñ bi bind ne ku ñëw ci jàkka gi sax fekk taaya fekk taaya ja na kàmbar to buñu ñu male mu jóg ndax te julli gëna bok la ko ca boole moy du liqaamaat wa qul liman adraka fi tasahudi imamahu qum wa salaataka waxu ñu raw ko mom waye fekk wu ca dara lu dul liqaam bañ ko liqaamal jataay maam caam teewut mu bok ci mboro ba la ndax la ko ci boole moy gabar na fekk sel mala guñ bu jógee na ciow rek tambalay jang am na ñooñ day jëf tam li xaamaat ne bëgguma ci julli fekk na muy tàgg loolu it lu mat sonne la waaye bi sallallahu alayhi wasallam neena nee na am nañu bëgg lu baax lool ba dañuy naafile ci bi jàkka ci ba bañuy taxawal ñu nekk seen ñaar rak ba nopp yoraale kurus gi tocc tocc di di wax te fekk ñi ngay julli di pare kurusee wat moo ne ku li xam jege mu wóor ko ne mënu fee àggale na bàyyi ba julli farata ci jeex ida uqimat salaatu fala salata illa al maktubatu bu ñuy tàmbalee xam moom dara nekkatu fa lu ñor xom lu dul julli farata waaye am na ñet julli gu diis julli ci diis gu julli diis ci seen xol liñ dëkke mooy sikki sàkk ba xam ñaata rakk la ndax ñuru leen ñaata rakk te moo ne boo ko lajoon sa compte banque ñaataa ca nekk relevé bi nga mujj am ñaata la bu doon nelaw sax bu yeewoo nga la te julli gën a dëkkal ci compte banque julli mi ci jëmam ji fu mën a nekk te dooru ne compte banque fu mu nekk mën a dem ca banque am na xel ci Euh, yii xew léegi jax-jax googu cim xel tax na dañuy fàtte seeni téléphone dañuy julli ba yàgg mu ne car ñu ne ko nii yonent bi waxoon na ci xutba ne ci xutba ajjuma ne ku laal ab jembaraay toppale ko fa mu nekkoon képp tàmbali naa ñàkk ak jullit ajjuma sakkantuma ak làmb ba fa mu nekk mu fay ko wala mu bës xam fa fa wuyo mu def safan ba fu xonq fa rawat nag fay ko dafa fek ni ci bir julli gi gannaaw ci xutba bi lañ ko la ko yont bi tare sax waxale wuñ julli motax mu ne woon kenn ku ne ci yéen na xol ni may julle mu dina julle mu dina julle bala ca jëm mu ñor ko bëgg ko ci xolam fas ko yene def xam li ñu julli lu ndox am na jaawal jaawale san la julli wa tusba xam gu mu ci julli leg leg mu seumal leg leg mu tambali tàmbaliwaat waaye ñàkk gu mu ko ñàkk ñor ak xol bu ñàkk xol bu ci ñàkk toj yàlla ñu ci xam mos li ma tàmbale woon nag mooy inondation bi ndax day wàcc ni julli waa wala déet suñu borom nee alquran wa laqad darabna lin linnaasi fi hada alquran min kulli mathalin laallahum yatadakkaruun la nit doon jàng ci yenn tolluwaay yi ndax julli dana ko wàcc waa wala déet naxal boppam ci loolu mu tuddee inondation te nee naa inondation ñi am xam-xam ci ndox nee nañ du ndox mu taa mii at ba at ma dellu si ci kër yi ak bett déedéet inondation mooy ndox mu wàcc aw yoonam juum ba weesu fa maroon a yam wala fa maroon a jaar waaye ñun ñëpp gis nañ ne adduna bi waajal nañ ko ba ci réew yi ñu gën a jege ci Afrique ñoo nu ëpp ab taw fuuf bu ndox ma walé ba dugg ci kër yi ba yàq la muy yàq bu amee ñaari fan duutoo ko teg ba ndax liggéeyoo nañ ko démb tey soog a ñëw sabab lu ko sabab lu ko ci gàttanu dogalub yàlla waaye nag su fekkee at mu jot ñëw wër xool delluwaat lay doon na nit ñi muñ nag xam ne ko yàlla waree tegg dara ko rek te bu mu leen yàqal seen jaamu yàlla bu mu leen tax a saalik bu mu leen tax a ŋàññi kii wala ka lu ñu wax ne def nañ ko ci nañ ñu ñëpp nañ ko gëm te xam ne mag mu jàkkaarloog yow jóge fi mu jóge ba ñëw su ne def naa nangul ko ko waaye nag ñu bari si ñun seeni gët a neexul nag ba yenn yi mënuñu koo ràññee ci ab xool yi rek gis ko yàlla na yàlla dafa dégg topp te musul seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin